Salut les amis de e-Sport TV merci encore gars de la confiance renouvelée ah merci de wéy di like merci de wéy di abonné merci également di bàyyi seeni commentaire mbokki Sénégalais fait fépp foo leen mënti nekk diaspora avec ruqaruqaa yi ñu ngi leen di jaajëfal ñu nekk ci kaso également nga xam erreur judiciaire gi ñu li ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa delluwaat leen seeni njaboot ñi dédoo àdduna suñu borom xal leen àjjana fi daw si gars yi on avance ensemble dans la machine de sport TV l'actualité en continu actualité bi nag laataa ñu si commencé gars yi dañuy masawoon encore une fois waa Walf TV di wax 100 Wolf TV parce que tamit samay confrères et comme on dit rek gën a yey et surtout gars yi nit ki loko bañ bañ bañ wala son non sax waroo ko yéene safaan ñi ngi wax ay doomu adama ay ñuy liggé ci bénn ñu bëgg leen parce que dañuy wax li nga ne seen permettre ter salaire et tout et comme on dit ça saa Sénégal benn bopp la luñu ñu xamewul buñ ko jël tay def ko jikko deug nak moy njëkk moy muju yalla ñu yalla tass ci barkeem ba paré may ñu ñu jub may ñu deug gaay li nga xam nak mom lay waxtaanee moy ki nga xam moy Alfred Gomis Alfred Gomis gaay nak li tax ñëwul li nga xam moy donc regroupement ba légui moy da doon takk soxna mais aussi on va parler de Habib Diallo et aussi de Mori Diaw laata bobu nag gaay joxat leen histoire le premier joueur africain à avoir remporté la Ligue des Champions c'est un certain Rabat Madjer c'était dans les années 1987 ngeen gis ko en 6 matchs il avait marqué 3 buts délivré 3 passes décisives l'Algérien n'a que félicitations à Alfred Gomis Alfred Gomis gars t'as temps yi moom ça et là, saa Alfred yow <laughs> mais félicitations à Alfred le gardien de l'équipe nationale du Sénégal bi nga dafa daal di takk soxna ni ñu waxee ah, yi donc euh, félicitation mu ngoog ki nga xam aussi nag mooy Wesley Fofana moom nag nee na dëgg la am ay contact ak ñi nga xam mooy donc sélectionneur bu Côte d'Ivoire mais moom si boppam lépp na mës a leer dafa mës a jouer pour équipe de France loolu mës a xalaat loolu mës option ñaar ñi nag ñaari Brésilien Vinicius ak également Neymar ñi ngi woon ci États-Unis di seetaan li nga xam mooy donc lii di finale NBA ils étaient ensemble les deux brésiliens

ma tooñ maa ngi dégg ñu naan man dama bokk si ñuy jàppale émir bi pour mu daal di recu li nga xam mooy donc Manchester United nee sama yoon nekk si te sama xalaat Paris Saint-Germain laa moom ñun te moo nekk suñu xol ki nga xam ne nag mooy Gareth Bale dañ ko laaj ne joueur yi mës a dans l'histoire de finale ñi mës a gagné nga xam Ligue des Champions pour yow kan mooy le meilleur joueur mu Lionel Messi mom fait la Ronaldo Lionel Messi comme étant le meilleur joueur pour xamné gagné na Ligue des champions ki nga également mom ngeen di gis jamono ji gars lui il faisait partie de la première génération dorée bi nga Manchester City tay ji il doit jouer contre cette équipe gars yi Edin va jouer cette finale ki nga xam également moom ngeen gis ni Milik Milik gannaaw bi nga xamee nag ne waa euh, Juventus teguñ ci gafa gi euh, donc xaalis gu bëri waa Lazio de Rome ñoom pare nañ pour tek 10 millions pour d'aller recruter Milik te waxtaane mi ngi am diggante ñoom ak euh, ñi di Marseille ki nga xam également nag moom donc kii di Thuram Marcus Thuram Mom, Nak, diggante Paris Saint-Germain ak Milan la nekk ndax ñoom ñaar yooyu ñëpp dañ koo daal soxla te ñi ngi defal proposition pour d'aller recruter Harry Kane Harry Kane Mom, kenn la jamono ji koo xam ne daal Real Mom, la bëgg gannaaw Kai mais à la pointe de l'attaque pour remplacer surtout ki nga donc Karim Benzema ñom daal Gareth Bale dañu di eh, gis ki nga Rafael Guerrero bi nga jamono ji à Dortmund commencé nañ ko wax lu parce que dafa dem ci Bayern mom nak gaay li des ci mu di signer quelques détails rek mo ci des mu à di signer contrat de day jëm ba ci ñaari ba ñetti at sax Bayern de Munich ki ngeen gis nak également gay. yi il fait partie des joueurs asiatiques yi wane seen bopp du côté de l'Eintracht Francfort ñu ngi koy tudd jamono ji du côté de Milan mais depuis que li nga xam ne mooy donc Maldini jóge na fa lii di transfert fa daal di taxaw du mom kese aussi ki nga également moy, donc qui di Mbappé Mbappé nak gay, yi donc le nouveau président de la fédération française de football nga xam ne moom sénégalais la yaayam di française moom nag nee na dafa bëgg Mbappé jouer Jeux olympiques Mbappé aussi loolu la bëgg même bu fekkee ne yeneen compétition yi Europe Coupe d'Europe ak yooyu mi ngi ñëw ki nga xam ne également mooy kii di donc Joao Cancelo waa Arsenal nag actuellement gars ñoo ci Manchester City 50 millions lay laaj te Arteta xam na ko daf ko daal di bëgg gars yi nag wax après avant finale bi dina def benn analyse technico tactique wax nga xam style de jeu bu Inter de Milan face au style de jeu de Manchester City pour aussi ngeen am seen idée ci confrontation yi gars mais d'abord gars yi laata le onze de la l'année des joueurs africains ou du côté de la Ligue 1 ñatti sénégalais ñoo nek kenn ki ñaari sénégalais ndax ñu ngi équipe nationale kenn ki il a la double nationalité muy Habib Diallo ak également Habib Diarra mais aussi ki nga xamné moy mooy mais d'abord Habib Diallo sixième meilleur buteur de euh, la Ligue 1 cette saison avec 20 buts Habib Diallo premier buteur de l'histoire de Strasbourg bu Dougal, 3 buts si premières minute différents matchs donc ñetti matchs yoo chaque première minute day Dougal Ben but mais également le premier joueur depuis 1900 1978 et tout pour atteindre la barre des 20 buts Habib Diallo qui fait une saison exceptionnelle aka Bip Bip mingi toj également Moridiao, Moridiao élu meilleur gardien sénégalais d'abord mais également dans le 11 type des meilleurs joueurs 11 type de Ligue 1 française Moridiao qui est en train de faire une saison exceptionnelle il y a a penalty dafa am taille dafa dafa et comme je dis aujourd'hui de manière indiscutable c'est le meilleur gardien en matière de statistiques au niveau de l'équipe nationale du Sénégal Guys, c'était les informations que je voulais vous donner toujours un plaisir de vous servir wooy leen like mais surtout guys, yi wooy abonné abonné abonné pour également agrandir la famille on va faire l'analyse d'avant-match ci ñaari équipe yi